changé d'adresse j'ai pas changé de discours samay mbokk conseillers municipaux ñu ngi fiy toog commune de Dalifort Foirail amul intérêt ci projet bi ndax population Dalifort Foirail amul ci intérêt bu fi doon jaay ndox bu sedd sax moo ñu gënal benn benn ragal di fi di fi di fi tabax li tax du ma wax turam parce que man ragal du ma ko tudd bu ñëwee ne ma wuyu maa ngi koy xaar te suñu diggante jàmm dafay jeex. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu nuyu ñëpp. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu nag jotaay bi di nuyu autorité yi fi teew yëpp particulièrement di nuyu suñu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekk def une forte mobilisation jógee lébu gi suñuy kilifa yi rek bu leen gisee rek tey nañu assuré ne xeex bi yarax yëpp ñoo ci bokk ñu leen di waral wax tey lan moo waraloon ndaje bi ndaje bi li ko waral mooy dafa am ñu nekk ci bi di wax loo xamante ne maîtriser wuñu ko ci dossier bi bu nu choisir tey bés bi def ko fii dañoo bëgg mur de Berlin bi mur de la honte bi yéen ñëpp ngeen jàkkaarloo ak moom képp kuy doomu yaraax bu gisee lii yaramam war na daw képp kuy doomu yaraax bu xoolee lii xelam war na sore kon tey lan la ñuy wax le promoteur Birame Yaya Wane yarax daal ragal amu fii tappet yewoowul fii te dama ne ñun duñu mujjee ba duñu yor tey jii li nga xamante ne mooy ndomba tànk yi ñu yor yàlla jox ñu ko ci biir dëkk bi ñuy am ñàkk fayda ak ñàkk fulla moo day accepté lii di ko baax ne yegg suñu defee manifestation bi bi ci topp mu ne ñu dañuy demandi autorisation marche man dama naa lool yëpp day sore biram yaayaa wan na arrêté liggéey bi na arrêté liggéey bi ñun date biñ ko may une semaine lañ ko may na arrêté li muy def ci yaraax bu arrêté wul lu mu def ci yaraax moom lu mu gis rek na xam ne moom la parce que nag trois jours trois jours trois jours trois jours trois jours lañ ko may bu arrêté wu liggéey bi lu mu gis mu la na si yaraax jëm kanam Sénégal de dem ci salam alaykum salaamaaleykum salam alaykum dalifo waaw xeyna man mënon na sax baña wax waye ñu indi rek touti leral damaa bëgg rek indi tuuti leeral leeral bi may njëkk a indi mooy le fait que ñu ne sa Diallo dafa joxe autorisation de construire ñi ko njëkkoon bañ fii ci place bi man ci laa bokkoon dama ne du dëgg amul man musuma ànd ak Idrissa si ci politique musuñu ànd soo opposant laa nekkoon ci biir Dalifort waaye nag cela ne veut pas dire bu ay caaxaan amee dama siy ànd déedéet man du ànd si caaxaan man nag li tax ma yéeg fii xam ngeen li tax ma yéeg fii fii laa magge waaye tey fii laay yendu di fi fanaan waaye nag musuma yendu fii tamit te ñëwuma fii naan ataaya ba ngoon jot ma ñibbi dama bëgg le maire Baye Diop Mamadou Mbengue mu xam leen tey waxoon naa ko fii ci place bi dinaa ko waxaat tey man duma tudd duma tudd Babacar Mbengue déedéet Babacar Mbengue soxaluma man dëkkuma en Bel Air Dalifort laa dëkk su may wax damay wax l'autorité publique wala locale de Dalifort Baye Diop dama bëgg nag nga xam leen tey sa délégation spéciale taxaw na sa délégation spéciale taxaw na si mbir mi ndax lu tax sa délégation spéciale taxaw na lii caaxaan la ba ñuy dem local en 2022 janvier 2022 Birane am na nu mu def ak Baye Diop le maire de Dalifort ñun xam nañ li xew

bu fekkee nag da bëgg Dalifort loolu nga yor noonu mu prospérer Dalifort gis ci seen bopp da ñëw ñu jàngal la waxoon naa ko tout sauf Baye Diop ku mu doon gañe ci d'accord naa man ba dara ca parce que xamoon naa li ma doon wax man xamoon naa li ma doon wax dama ne ce combat ce combat du combat ay yaraax du combat ay dalifor c'est le combat de toute une communauté parce que yaraax mon jur dalifor yaraax mon jur dalifor Ne fii nak di def historique mun nañ dugg si lu bëri ambaaw yaa Abdou Gueye

man nak ma ngi tudd Daouda Yade nekk président collège Fele Fele bu Thiaray daanaka mbir mi mom dafa nek lo xamanteni ni yëfi lépp yëfi ñëpp la muy mol mek muy ci entraînement ak seen yef la man nak benn côté ma ànd xalé yi benn côté xale yi laa àndal tey bi ma xëyee sama kër dama ndekkee lu baax parce que dama ñu dafa won dañu ñëw pour xex ci man loolu bo fandi won dama jóge Caaroy mais dama ñëwoon pour xees loolu ma fenn woon du leen nag waaye nag comme ni la kilifa yi waxee comme ki ay kilifa nag benn instant da ngay nangul naa leen li nu ñaan di leen xamal ne kilifa di leen massaw di leen ci taxawaay bi yàgg na metti na yàgg kaddu yi ñu jël nag ñu ngi ko jël ci suñu turu kilifa yi nga xam ne ñoom laa àndal naaj bi dafa tàng waaye ñoom ñoo waroon taxaw fii jël kàddu wax leen cosaan ci dëkk bi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu mag ñi ñoo àndoon ak mag ñi démb bi dara dul dara ñu ànd ak suñu maam yi c'était en 1902 jóge Caaroy ñëw yarax boobu yarax dara nekku fi ba ñëwee samba fi ñetti kër ba mu doon juróom-ñaari kër mag ñi àndoon nag ñoom ñu ngi ne leen toog bàyyi cee ne géej ne bàyyi mbaye ko war nga ne leen setu maam Ndiaga nga ndey si bu ñuy wax yarax lébu gi ñoom ñii ñoo tax ñuy wax. ndax bi yaraax doonee bayal kese ñoom ñoo fi nekkoon di xeex ak tubaab yi ba lii am am ñi fi nekk mag liñ fi xàmmee muy ay koko koko yooyu ñoom ñoo ko daan jële ji Joal Fadiouth di ko andi di ko samp ba yaraax yëpp doon ay koko kon tey ji yaakaar naa képp kuy xeex yaraax ñoom ñii nga war a jàppale ba ñoom nag ñu ngi wax ni combat bi xëy na dañu koy yéex a yëg waaye daañu ko bokk ak yéen ba lii jóge fi comme ni ñu wax ba suñuy maam yi jóge caaree ñëw di sànce yaraax yaayawoon baayam fan la nekkoon fan la nekkoon bi ñuy xeex ak tubaab yi fii yaayawoon baayam fan la nekkoon ba tax muy ñëw fii jël 9200 kilomètres ëllëg mu dem bàyyi ko fi njabootam donn ko ñun waaye raaf lan la ñuy xaar lan kon ñu ngi leen di ñaan xeex bi na continuer lii na toj na tooj na fi jógee ñu ngi wax na ci baatu lébu gi yëpp xëy na yéex a moo tax ñuy wax waaye nii dana law ci waalo gi dana law ba yarax jib combat bi duñu ko bàyyi ak yéen. salaamaaleykum mbooloo mi ngi sant ñam yi ngi ñep salam salaamaaleykum maa nuyu kenn ku si nekk si ak sa sant. di baalu àq ñep tari di baalu ñep di wax di maa nuyu ñi nga xamni moy sumay mam may maam ñu toog muy Baye Thierno gay ak Baye kor sam jaraaf maa ngi lay nuyu di nuyu baaxa baaxa baax di nuyu sama tonton Ousmane Thiongaan nuyu naa ñëpp nongo fay maa ngi lay ziar premier adjoint Matar ziar na ñep salu job di la ma am lumay laaj ba pare avant ñuy wax. dama dégg ngeen ni affaire bi dafa nekk ci projet projet bi mu nekk nag pour man sama xalaat ah Maodo pour man sama xalaat bu fekkee dafa nekk ci projet lii war naa arrêté ñu liggéey dañuy taxaw ba projet bi leer ba pare ñuy doogam liggéey beneen bi plus de trois cent lutteurs ak ay sportifs yoo xam ne dañuy fubal fii la ñuy tàggatee seen yaram fii man fii laa dalee baax fii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 ñoo ngi beral néew ak cant nag suñu pàppa yi ak suñu yaay yi ndax ñun lu ñu gëm mooy lépp lu fi baax mag ñi ñoo ko moom lépp lu fi baax mag ñi ñoo ko moom ndax bu ñu waxee tegle bu jubee tàmbali gi moo baax Baye Thierno Gueye sëtu baay Baara Gueye nday si sëtu suñu maam Njaga Si Boubacar jonk Samba Kasanke Bokar Seck Chérif Lam mag ñu baax ñooñu nga xamanteni dañu taxawon dekk bi ñoñu ñom ñoñu meñ fexé luñu ñu manqué la woon ñun ñu matle ko ma ngi ñaan yal yalla yàlla kep kuy nonu an belair yal yalla yàlla kep kuy nonu an belair ak dalifor ma ngi ñaan yalla suñu borom euh, kep kuy dindé meddu askan bi yal yalla yàlla la ñu nuyu fi nek di di len wax ne len euh, li ni man mom la tuddé le mur de wan te di wax ki ko fi teewal te te nanguwul présenté wu xamuñu xamuñu mooy kan te mu ngi filmer ñu wax ko na ko na wax monsieur le mur de wan ne passera pas le mur de Berlin est tombé le mur de wan va tomber di wax population Yarah ne combat bi nekkatul combat wu Neko nekkatul combat wu Dalifort kese combat wu Sénégal le léegi man dekuma yaraax dekuma Dalifort

maa ngi nuyu ñëpp ku fi ku fi toog rek maa ngi lay nuyu sa tur sa sant di leen wax ne leen xeex bi lu muy metti metti metti ñun waa bel ñoo ci gën a metti le ñoo si gën a sonn ñun waa Bel-Air parce que fekk ay nit ñu tëdd di nelaw nga embuscade leen ñu foog ni si ngay yem nga toj seeni kër fekk nañu mool yi dem géej fekk nañu mag ñi dem géej ñun xale yi ñoo fi des ak jigéen ñi ak paa yi xam nga ni mënuñoo xeex ak kenn.

ak gendarmerie laa di nga gis boogaa dugg si biir commandant dégg li ñuy wax Jibi Diop du ma bàyyi ma fenn Maodo Dieng du ma bàyyi ma fenn faralu promoteur bi faralu ma collectif bi équipe municipale bi ak autorité d'Alifor équipe municipale bi ak les préfets ñoo war ñëw jël ñaari cas yëpp ñu toog fenn ñu toog journée wala deux jours wala trois waxtaane ko ñu xam kan moo am dëgg état waruñu mën a nax kenn waruñu mën a nax an belleer li mu am si littoral littoral bii am Bel-Air li mu am suñu littoral bii tey am nañu ay projet yu bari yu fa nekk donc dañu bëgg dialogue bi ngeen ñëw ñu toog ñu xam bañ a sacrifier suñu jeunesse am na ñoo xam ne ñu ngi fii yaraax la ñu dëkk am na ñoo xam ne ñu ngi Dalifort Dalifort la ñu dëkk sont corrompus te pourtant ñooy organisé nañu wax dëgg de dee nañu wax dëgg de dee ñun waa yaraax les corrompus sont devant nous les corrompus sont devant Dalifort bu leen sacrifier jeunesse bi wax leen la dëgg. disez la vérité de dëgg jeunesse bi suñuy maire ñaari maire yëpp dañ ñëw ak ñaari préfet yi ak collectif bi ñu dajee ñu toog ñu waxtaan loolu ñaanee rek ñu jël marto yi toj mur bi ñu daal di yëkkati jataay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah marto yi kan moo ko yor très bien nekk imam ci commune ñu jege ci Mbàkke comme ça bu ñu paree ci ñaan yi ci oustaz rek ñu dem toj te dañu wax ni man lam yahtama bi umuuril muslimina fa laysa minhum képp koo xam ni li yitteel askan wi yitteelu la bokkoo ci askan wi bokkoo ci jullit yi nekkuñu ñu imaam yoo xam ne dañuy wax allahu akbar asalaamaaleykum lu population bi laaj dañ ciy taxaw du ñu jël loo xam ni population bokke moom ñu jox ko benn nit ngir mu duufale ko poosam kon miir bi ñun d'accorduñu ci te question bi ñu doon posé maire tontu wuñu réponse bi mu ñuy jox daal mooy fi la ko fekk fi la fekk projet bi loolu nag doyul buñ la falee nga nekk ci kanamu askan wi lépp loo xam ni dafa war a yàqal askan wi danga war a taxaw ci combat bi jiitu ci kanam kon ñun ñëw nañu taxaw wane ni commune Dalifort ñi nga xam ne ñun ca la ñu bokk d'accorduñu ci projet bi waa Yaraax d'accorduñu ci kon projet bi na fi jóg na fi jóg nag ci jàmm ndax ñun jàmm lañu ñu bëgg suñu njaboot a fi nekk di fi dund loolu la ni woon nañu ko wax ni leen ñi ngi ci seen kanam ñi ngi ci seen ginnaaw bokk nañ ci combat bi in yansurukum allahu fala ghaliba lakum ku yàlla di dimbali kenn du la yàlla nañu yàlla jox kàttan ba lii mu jóge fi ci jàmm kenn bañ cee gaañu ñi massawu ñi ci jote a sonn ndax am na ñu ci jot dem ci kaso bi te dañ doon nappe rek waaye lii wane na ni tëj nit ñi ci kaso bi taxut nañ ñu toog ku leen tëj itam dinañu génn konte waat continué waat xeet bi wasalaamu aleykum wa rahmatullah feeraay yaa jëkk jàpp jàmb kimpi montaan ba kàppaas te daaru salaam benn lebu gi wàllu gi taxaw jot mu xeex la tefes moo fi nekk Yaraax moom la yaakaar si bakkan la tegul amul tekk tekkal ay seen délégué de quartier imaam soxla wu ñu kaar mari ci ñu lii open suñu doom dooni jaga ministère de l'environnement mooy de kii booru géej mën a dem entraînement ici à Kër Kayma waxuma la Tambacounda waaye benn leer ba Tamba amatul noppalukaay kenn du ñoo xokatal ba ñu napp waay kenn du ñoo xokatal ba ñu napp waay